gaaw leen ngeen abonné ci seen seen youtube bi di TV KMBN ñu tuddee ko TV Khalifa Mouhamadou Bassirou Ndao ngir ngeen mën di jot mbooleem xew-xew yi nga xam ne day xew fii ci Daaru Salaam El Hadji Omar Ndao ak yi xew ci biir réew mi ak ci bitim réew juddoo ak keroog bi mu juddoo ak li mu dund ak li mu dund ak keroog bi mu faatoo ak keroog bi mu faatoo keroog bi ñu ko rob ci Medina ak keroog bi ñu koy rob ci Medina am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne lépp lu fa xew lépp lu fa xew yàlla xamal na leen yàlla xamal na leen xam lii ci sàmbara dañ xam lii ci sàmbara du dara nee na kon du dara du kéemaan du kéemaan ñun li ci xam-xam bi nee na moom xam-xam bi xam ci sàmbara lu wér la lu wér la ci ñaari yëf lañ ko jëlee nee na ci ñaari yëf ci la ko jëlee sama baay nee na baayam lépp lu ma wax lépp lu mu ko wax ma dégg ko mu dégg ko wattu naa ko wattu na ko fàttewuma ko fàttewut ko te bi bi maam Samba gaañoo nee na te bi maam Samba gaañoo dafa ko defal ñaari marsiya daf ko defal ñaari marsiya bu arab bu arab bu wolofal bu wolofal bu arab bi bu arab bi bu wolofal bi bu wolofal yëpp mokkal naa ko nee na yëpp mokkal na ko mën naa koy tëri mën na koy tëri xam naa ko baax a baax nee na xam na ko baax a baax nee na di ko ñaanal suñ mag suñ mag Alaaji Ousmane Fatou Alaaji Ousmane Fatou lépp lu ma ci wax. nee na lépp lu mu ko ci wax. fàttewuma ko fàttewut ko xam naa ko. xam naa ko te ku xamoon maam Samba la. nee na te ku xamoon maam Samba la. ku ko bëggoon la. ku ko bëggoon la ku ko yërëmoon la. nee na ku ko yërëmoon la. sama baay wax na ko. nee na ba baay wax na ko. ca marché ba. ca marché ba. nga Ousmane Hafiz. nee na Ousmane Hafiz la. jàmmi baay baa fa nekk moo baax. jàmmi baay baa fa nekk moo baax. teggin nga ak bëri yërmande ka mooy jooy. nee na teggin nga ak bëri yërmande ka mooy jooy. mu ne Alaaji Ousmane. mu ne Alaaji Ousmane. Faatu. Fatou ku amoon teggin la. ku amoon teggin la ku amoon yërmande ci sàmm rek. xaafis la. nee na xaafis la. ku baax la. ku baax la lii wax na ko ci. nee na lii wax na ko ci sàmm rek. kooku nag. nee na kooku nag. lépp lu mu wax lépp lu mu ko wax. fàttewul ko ba fi mu toog nii. Allahu akbar. ah li ñuy wax nag. nee na li may wax nii. keroog dama bay ko ci jàkk ji. nee na keroog dafa bayee ko ci jàkk ji. jëm si si kër gi jëm si si kër gi. Babacar doomi Mori Diop. nee na Babacar. doomu Mourou Ndiobo. ànd ak man ba fële. ànd ak moom ba fii. ne ma li nga waxoon keroog kër Sambara xëy. nee na li nga waxoon keroog ne ko li nga waxoon keroog kër Sambara. te Seydou Adja man dafa wax ne. ndax Seydou Adja ku yàlla bëgg. nee yàlla bëgg. doo boole ñett yi. du boole ñett yi. gudd fan. gudd fan. wér lool. wér lool. am wërsëg lool. am wërsëg lool. nitu nee na nitu yàlla. du boole ñetti yoon du boole ñetti yoon. mu ne waaye wax boobu. mu ne waaye wax boobu. loolu ñooñu dafa am gars yi gars yi la mu wax gars yi fa am nuñ ko gisee. dafa am gars yi nuñ ko gisee. mu ne ko nuñ ko gisee. mu ne ko nuñ ko gisee. mais dañ gis ne tam maam Samba dañ dégg ne. mu ne dañ gis ne maam Samba. dañ dégg ne. dañ dégg ne maam Samba. guddoon fan la. guddoon fan la. te ku wéroon la. ku wéroon la. mu ne ko yooyu ñaar de dëgg la. mu ne ko ñooy yooyu ñaar de dëgg la. mu ne ko waaye nag wax bo mu ne ko waaye nag wax boobu. benn muy waxi kontoor. benn muy waxi kontoor. waaye di wala diingat. wala waxi diingat. waaye te benn bu ci la dëgg. te ci nekk rek dëgg la. ku yàlla bëgg. ku yàlla bëgg. rasul laay bëgg ko. naa yi bëgg la gaañu baax bëgg ko gaañu baax ñu bëgg mënta boole ñett yi mënta boole ñett yi doo mukk nee na doo am mukk foog yàlla dana ko natt nee na foog yàlla dana ko natt mboolem góor yàlla yi mboolem góor yàlla yi li leen yàlla natoo li leen yàlla da natoo ku la ëpp ma xama ku la ëpp ma xama ci yàlla ci yàlla gën la ci yàlla gën la ci yàlla ëpp la nattu ëpp la nattu ku la ëpp ma xama ci yàlla nee na ku la ëpp ma xama ci yàlla gën la ci yàlla gën la ci yàlla. ëpp la nattu ëpp la ay nattu. te tafsir Sambaraxi. nee na te tafsir Sambaraxi. ci góor yàlla yi la bokk. ci góor yàlla yi ci la bokkoon. ci la bokk dëgg dëgg. nee na ci la bokk dëgg dëgg. loo xam ne amul benn benn benn benn benn sikk. nee na loo xamante boo boo xam ne amul benn sikk sax. kon nag duñ ko def exemple. nee na duñ ko def exemple. ci fanu gudd. ci fanu gudd. wala wér. wala wér. waaye loolu dëgg la. nee na waaye loolu dëgg la. fan yu guddoon na. fan yu guddoon na wéroon na kàkki. wéroon na kàkki. waaye yàlla nattu bi mu ko nattu. nee na waaye yàlla nattu bi mu ko nattu. nattul ko doom. nattul ko doom. yàlla bu mu ko nattu sa. yàlla bu mu ko nattu ay sëtam. bi natt bi yàlla na sàmbara. nee na natt bi yàlla na doon sàmbara. nattuur ko doom. nattuur ko doom. yàlla bu nga ko natt ay yàlla bu nga ko natt ay sële. te mboolem doom yi. nee na te mboolem doom yi. natt na leen natt boo xam ne natt na leen natt boo xam ne. néew na ku mu ko nattoo. néew na ku mu ko nattoo. waaye jotuñ seen baay jotuñ seen baay nee na waaye jotuñ seen baay ci natt ba. su ma bàyyi. nee na bàyyam. am na fukki at ak juróom yoo xam ne am na fukki at ak juróom yoo xam ne. nee na li mooy fanaanee guddi. nee na li mooy fanaanee guddi. suñ ko tegoon ñeenti waxambaane. suñ ko tegoon ñeenti waxambaane. duñ yeewu ci guddi. duñ yeewu ci guddi. balaa ba daa set. balaa ba day set. ñëpp dañ faatu. ñëpp dañ faatu. te moom loolu guddi la koy jot. nee na te loolu guddi la koy dal. balaa fajar. balaa fajar. Hajar. mu dem dootul yëg dara. mu dem dootul yëg dara. ba Ibra Xali. nee na ba Ibra Xali. feebar na feebar boo xam ne. feebar na feebar boo xam ne. ñeenti at ñeenti weer. ñeenti weer ba juróomi weer. ba juróomi weer ba juróom-benn weer. ba juróom-benn weer mu soog a faat. boo demee. nee na ba mu demee. boo fa demee ci moom. boo demee ci moom. seeti ko. seeti ko doo ko xam ci waxam. doo ko xam ci waxam. du biñ ñi. du biñ ñi. doo ko xam ci jëfam. doo ko xam ci jëfam. da ngay dara jotu ko. da ngay fekk dara jotu ko. feebar bi mu feebar. te feebar bi mu feebar. kéemaan la kéemaan la yàlla la. bay Modou Khady nee na bay Modou Khady feebar na ay at feebar na ay at ba xel mi soppeeku ba xel mi soppeeku bay Lamine bay Lamine feebar na ay at feebar na ay at ba xel mi soppeeku ba xel mi soppeeku bay Matar Madi bay Matar Madi feebar la xamoon boo feebar la xamoon boo xam ne feebar bu bon bi lañ koy wax feebar bu bon bi lañ koy wax seetal ñii ñëpp nee na seetal ñii ñëpp bay Aliou Diabou bay Aliou Diabou moom feebarut nee na moom feebarut dafa gàttoon waaye dafa gàttoon gàtt fan doy na gàtt fan doy na nattu dëgg la de dëgg ji wér mboolem doom ji moom leeram mboolem doom ji moom am na lu yàlla teg loo xam ne am na lu ko yàlla teg loo xam ne natt boo xam ne natt boo xam ne kéemaan la kéemaanal yàlla la kon kooku nee na kon kooku su ko yàlla nattoo su ko yàlla nattoo euh, lim ko nattu lim ko natt fa euh, gudd fan gudd fan wala wér wala wér moo ci gën a néew moo ci gën a néew te nit ku baax nee na te nit ku baax ni ma la ko waxee comme ni mu ko waxee sànq nit yàlla pire nit yàlla pire yàlla dana leen nattu yàlla dana ko nattu ci ay yëf ci ay yëf te lim leen da gën a natoo li leen da gën a natoo mooy yaram wérali mooy yaram wérali wala ñàkk wala ñàkk wala soxna su dëng wala soxna su dëng waaw est-ce ndax boo demee ci itaabul xalil nee na boo demee ci itaabul xalil mu ngay wax itaabul xalil itaabul xalil sarans say fii la sarans say fii la mu ngay wax ne eh, mu ngay wax ne ku jàng jàngat say fii jànkatu say fii yàlla daf koy nattu ci ñàkk yàlla daf koy nattu ci ñàkk lu tax yàlla daf ko nattu ci ñàkk li tax yàlla da ko nattu ci ñàkk yàlla daf koy bëgg yàlla daf koy bëgg yàlla cofeelam gi te yàlla cofeelam gi ku mu ko def ci yow ku mu ko def ci yow nattu la ci ñàkk nattu la ci ñàkk mu teg ce ne nee na mu teg ce ne ilaa bi xiraati ilaa bi xiraati hisbul mooni boo jàngee mooni bi nee na boo jàngee mooni bi ñàkk googu ñàkk googu daf koy wotee daf koy wotee koom koom te loolu ci say fiw rek nee na te loolu ci say fiw rek la nag moo tax nitu yàlla nee na moo tax nitu yàlla yàlla dana ko natt ci ñàkk yàlla dana ko natt ci ñàkk nitu yàlla nitu yàlla yàlla dana ko natt ci yaram yàlla dana ko natt ci yaram yàlla dana ko natt ci soxna yàlla dana ko natt ci soxna lépp ci nitu yàlla yi yàlla ëpp ci nitu yàlla yi yàlla natt na leen yàlla natt na leen ci soxna soo xam ne soxna soo xam ne jubut jubut du xam nu mu koy def du xam nu mu koy def daal di jox ñaar neen danañu jox ñaar ba ñett ba ñett nga xam nit yàlla piir lañ ñoo xam ñoo xam ne nit yàlla piir lañ ci loolu leen yàlla natoon ci loolu leen yàlla natoon ñooñu nag nee na ñooñu am na ku leen ñeenteel am na ku leen ñeenteel muy tafsir sambara muy tafsir wax nee na ñuy wax fañ xamul waaye yàlla waaye yàlla ka ka ko nattu ci ay soxna dafa ko nattu ci ay ma ne baawkar nee na mu ne baawkar bu gisee mu bëri du bëri doom boo gisee mu bëri doom bu bëri jabar fa bëri jabar te bëri jabar yi nee na te bëri jabar Samor de bëri na doom. nee na bëri na doom. waaye bëri na jabar waaye bëri na jabar. jabar yi jabar yi. daje wuñ fi daje wuñ. loolu nattu la de. nee na loolu nattu la. seetlu leen ko rek loolu nattu piir la. nee na loolu nattu piir la. dem na wanaar. nee na dem na wanaar. moo El Hadj Moodu moo El Hadj Moodu. ñu julli ca jumaa ji ba génn. ñu julli ca jumaa ji ba génn. génn góor ne ma. génn góor ne ko. fu ngeen boo. fu ngeen boo. mu ne ko kër Sambaraxi. mu ne ko kër Sambaraxi. mu ne ko seen maam. mu ne ko seen maam. Sambaraxi. mu ne ko Sambaraxi. seen maam de. mu ne ko seen maam de. def na loo xam ne. def na loo xam ne. mosu ñëwee gis ku ko am. mosu ñëwee gis ku ko am. ñu ñu ne ko lan la. ñu ne ko lan la. mu ne am na fukki taaw ak ñaar. am na fukki taaw ak ñaar. taaw bu ne góor la. taaw bu ne góor la. mokkal na alquran. mokkal na alquran. bind kaamil jox ko. bind kaamil jox ko. seede ji wax. nee na seede ji wax. te ñun mosuñ ko loolu xamul. nee na te loolu xamul. moo tax may nee na moo tax may. soo xamee may. soo xamee may dañ la wax ba wax loo xam ne. dañ la wax ba wax la loo xam ne. jéggiwu daam jéggiwu daam. fukki taaw ak ñaar. nee na fukki taaw ak ñaar. taaw bu ne góor. taaw bu ne góor. mu taw alxuraan. mu taw alxuraan. bind kaamil jox la bind kaamil jox la. mu ne seen maam xam ne lii. nee na seen maam mu ne leen seen maam am na lii. ñi gën a laaj mu ne waa li kii di wax. nee na ñi gën a laaj mu ne ko kii di wax. loolu xam na. loolu am na. mu ne ko amul de. mu ne ko amul. xam nga lu mu doon. mu ne ko xam nga lu mu doon. mu ne ko dégg baaw am na fukki doom yu góor ak ñaar fukki doom yu góor ak ñaar loolu lañ dégg loolu lañ dégg doom ju nekk doom ju nekk yàlla may na ko jàng yàlla may na ko jàng am na fukki doom yu jigéen ak ñaar fukki doom yu jigéen ak ñaar fukki ak benn fukki ak benn kenn ku ne kenn ku ne sëy na ci kanamam sëy na ci kanamam fukki ñaar yëpp sax fukki ñaar yëpp sax sëy na ci kanamam sëy na ci kanamam ba am doom ba am doom kenn rek moo jaamu doom kenn rek moo jaamu doom muy bàjjan xadi hawa muy bàjjan xadi hawa mi bokk yaasin hawa mbii ji pakaja bokk yaasin hawa mbii ji pakaja daaru pakaja daaru pakaja bàyyi xomar daraam bàyyi xomar Omar Yaasin Baye Omar Yaasin ñu bokk ndeeg Baye nee na ñoo bokk moom Touba la doon sëy nee na moom Touba la doon sëy bàjjen xëri xawa bàjjen xëri xawa amul doom amul doom waaye ku ko mooy ci fukki ak benn waaye ku ko mooy ci fukki ak benn xam nga doom xam nga doom xam nga sët xam nga sët mu ngi fi mu ngi fi ba ba ba ba léegi may wax ak yéen nee na ba léegi fi may waxee nit ñi kon nitu yàlla nee na kon nitu yàlla kootu ci ay soxna am yàlla dana ko natt ci ay soxna benn soxna si jubadi benn soxna si jubadi wala mu xam mu dem. wala mu xam mu dem mu dellu xam mu dem. mu dellu xam mu dem mu dellu xam mu dem. mu mu dem ba nekk ab lim. ba mu nekk ab lim. ah Cheikh Ahmad Tidiane Cherif. nee na Cheikh Ahmad Tidiane Cherif. nu ko yàlla def. nee nu ko yàlla def. mbay yaayam. nee na ba yaayam. yaayam yaayam ak baayam. ak baayam ñoo ko wutal soxna. ñoo ko wutal soxna. soxna si ñëw. soxna si ñëw. gën a dëng xala. gën a dëng xala. mënta d'accord ak moom. mënta d'accord ak moom. Cheikh li mu bëgg ci wàllu jaamu yàlla. li mu bëgg ci wàllu jaamu yàlla. mu ne fii mu ngi amee soxna si. mu ne fii mu ngi amee soxna si. mënu ko. mënu ko. mu ne ko gàllankoor. mu ne ko gàllankoor. te xamul nu mu koy def. te xamul nu mu koy def. mu ne xeres na xeewi ko. mu ne xeres na xeewi ko. ci kanam ndeyam. ci kanam ndeyam ak baayam. ak baayam. muy muñ rek nee na muy muñ rek te muñ naqar da muñ naqar te muñ coono da muñ coono te muñ naqar da muñ naqar te muñ coono da muñ coono te muñ naqar da muñ naqar te muñ coono da muñ coono ba génn guddi ba génn guddi bàyyam faatu bàyyam faatu ak yaayam ak yaayam ñu xëy ca yoor yoor ñu xëy ca yoor yoor ñu roob leen ñu roob leen mu ñëw ci kër gi mu ñëw ci kër gi gan ñi tasaaroo gan ñi tasaaroo mu yeewi soxna mu yeewi soxna kër gi tas allahu akbar kër gi tas gis nga bii nag nee na gis nga bii nag te nitu yàlla pire la nitu yàlla pire la كرو كرجيز تاس نانا كرو كرجيز تاس فيار بو خاندي خيرون فيار بو خاندي داف باميون فيار بو ماون فاس نانا فيار بي سي بابا ماون فاس ني كو مباس ني كو واخ مباس تي ري يام غانيو نانا تي ري يام غاني اك بايام تي генو غودي تي генو غودي خاي تي يور يور خاي تي يور يور بروبلين ني روبلين بو نيو تي كرجي بو نيو تي كرجي اي زون اي زون كرجي تاس كرجي تاس مودم تي غارجا نانا مودم تي غارجا wut fa ñaari gune jigéen wut fa ñaari gune jigéen jënd leen jënd leen kii mu tuddee ko barakatu kii mu tuddee ko barakatu kii mu tuddee ko mu barakatu kii mu tuddee ko mu barakatu mu ñëw dajale kilifaay dëkk bi mu ñëw dajale kilifaay dëkk bi nga xam ne julli lañ nga xam ne julli lañ mu ne may naa leen gune yi may naa leen gune yi kilifa yi jël gune yi kilifa yi jël gune yi ñoom itam goreel leen ñoom itam goreel leen mu yëkkati xaalis jox leen mu yëkkati xaalis jox leen ñu may ko ko ñu may ko ko mu nekk ay soxnaam mu nekk ay ñu nekk ay soxnaam mu am ñaari soxna mu am ñaari soxna barakatu barakatu moo jur Momadou Kabir moo jur Momadou Kabir mubaarakatu mubaarakatu moo jur Sérif Mohamadou Habib moo jur Chérif Mahamadou Habib mu jur Mahmoud mu jur Mahmoud mu jur Bachir mu jur Bachir mu jur Mouhamadou Habib mu jur Mouhamadou Habib Abdou Moutalib mi ñëw fii mi ñëw fii ci Mbaaram moo ne si Abdou Moutalib mu mu ndeykaaj nee na moom moom lañ tuddee Abdou Moutalib mi mu mu mu mu Mbaaram kooku mooy Cheikh nee na kooku mooy Seydina Cheikh Abdou Khadir Jeylaani Abdou Khadir Jeylaani mook Cheikh moo Seydina Cheikh seen ñaari maam yi seen ñaari maam ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk ndey ak baay Ousseynou mooy maam Ousseynou mooy maam شيخ حسن موي مام حسن موي مام حسن ابو زينو حسن ابو زينو فاطمه دالي جو فاطمه دالي جو علي علي يونس بي يونس بي موي سين مام موي سين مام عبد القادر جيلاني مومul nee na عبد القادر جيلاني moom lu ko sox lu ko jigéen defut lu ko jigéen defut kemaan la nee na kemaan la baayam nee na baayam samput kër samput kër baayam samput kër nee na baayam samput kër dafa doon dox dafa doon dox da dox rek da dox rek tey mu hendal tey mu hendal mu fanaanal fanaanal da dox da dox ba xàgg ci benn toolu xala xàgg ci benn toolu xala xaal xaal fekk fa ñaari gune fekk fa ñaari gune ñuy wata xaal ñuy wata xaal muy leen may leen ma ci xaal muy leen may leen ma ci xaal ñu ne ko ñemewuñ ko ñu ne ko ñemewuñ muy leen jaay leen ma ci muy leen jaay leen ma ci ñu ne ko ñemewuñ ko ñu ne ko ñemewuñ ko ndax li tax ndax li tax nitu yàlla nitu yàlla dañuy bëgg xaal dañuy bëgg xaal sedd bi ci xaal sedd bi ci xaal dafa wàññi leer gi ci ñoom dafa wàññi leer gi ci ñoom yaram yi xaw a sedd yaram yi xaw a sedd loolu tax mu bëggoon ko nee na loolu tax ñuy bëgg xaal moom nee na te fekk moom nit yàlla piir la nit yàlla piir la woon mu toog ci ron garab mu toog ci ron garab ga xale yi bañ xale yi bañ ba tàkkusaan ba tàkkusaan seen baay ñëw seen a ñëw mu ne ko mu a ko dama bëgg ci xaalis dama bëgg ci xaalis mu ne ko mën waaye dama la koy jaay waaye dama la koy jaay mu ne ko loo ma koy ko loo ma koy ko dama am doo xale bu jigéen boo dama am xale bu jigéen boo xam ne soo ko soo lekkee xaalis soo lekkee ma may ko ma may la ko jabar muy sa jabar mu ne ko waaye man dëkkuma fenn man dëkkuma fenn xaw ma kër xaw ma kër damay dox damay dox xaw ma kañ lay dee xaw ma kañ lay dee xaw ma fu may yendu xaw ma fu may yendu xaw ma fu may fanaan waaye nag d'accord naa ci li nga waaye d'accord naa ci li nga wax mu jox ko xaal bi ñu jox ko xaal bi mu lekk ba suur mu lekk ba suur ñaan ñëw ci kër ñaan ñëw ci kër gi jaar ci jàkk ji jaar ci jàkk ji dajal timis jot dajal timis jot ñu julli timis ñu julli timis mu ne mbooloo mi mu ne mbooloo mi gan gi gan gi dama ko bëgg may sama doom diw dama ko bëgg may sama doom diw sàngam ñu may ko ko ñu may ko ko ñaan ñëw ci kër gi ñaan ñëw ci kër gi moo yaayam moo yaayam ñëw mu ne ko yaayam ñëw mu ne ko diw may naa ko gan gi diw may naa ko gan gi nañ ko defaral nee bale nañ ko defaral nee bale mu fanaan fa nañ ko wutali reer nañ ko wutali reer ñu wutal ko reer ci guddi gi ñu wutal ko reer ci guddi gi defar nee ba defar nee ba fekk nee na ko fekk nee na ko ki ma laay may ki ma laay may dafa la fañ dafa la fañ dafa gumba dafa gumba dafa luu dafa luu dafa tëx dafa tëx mu ne ko bëgg naa mu ne ko bëgg naa ñu ànd ñëw nee na ñu ànd ñëw mu may ko ko mu dem ci nee ba góor gi dem ci nee ba toog góor gi dem ci nee ba toog ndaw si dem. nee na ndaw si dem. ñoo ko demal nuyu ko ci néew. ñoo ko demal nuyu ko ci néew. mooy sa jëkkër. mooy sa jëkkër. mu dox dox. ndaw si dox. ñëw sukk ba jàpp. ñëw sukk sukk ba jàpp. nuyu ko sargal ko. sargal ko jox ko ndox. jox ko ndox mu naan mu ne ko ah. mu ne ko ah. yow xanaa du yaay diw. mu ne ko xanaa du yaay diw. mu ne ko maay diw kay. mu ne ko maay diw kay. mu ne ko déedéet. mu ne ko ah sama baay mu ne may may nañ ma mu ne ko ah man sama baay mu ne may nañ ma la. mu ne ko waaw wax dëgg de. mu ne ñu toog ba reer mu ne ñu toog ba reer xale bu jigéen bi toog xale bu jigéen bi toog góor gi toog góor gi toog mu ne ko waay yow mu ne ko waay yow sa baay daf ma wax ba ne sa baay daf ma wax ci àll ba ne gumba nga gumba nga da ngaa tëx da ngaa tëx da ngaa lafañ da ngaa lafañ da ngaa luu da ngaa luu te yow te yow ku rafetee ni yow ku rafetee ni yow ko sama baay wax na dëgg de sama ko ah mu ne ko tey jii mu ne ko tey jii suma ñaar tànk yi suma ñaar tànk yi musumaay dox musuta dox jëm ci góor jëm ci góor la mooy tey la mooy tey kon la fa ñaar kon la kon la fa ñaar ci góor ñëpp kon la fa ñoon naa ci góor ñëpp tey jii tey jii suma ñaari bët yi suma ñaari bët yi mu tere soo ko xool góor bëgg ko bëgg ko gumboo naa ci góor ñëpp nee na kon gumboo naa ci góor ñëpp tey laa wax ak góor nee na tey laa kon lu woon naa ci góor ñëpp kon lu woon naa ci góor ñëpp sama nopp bii sama nopp bii tey la doo ko dégg kàddu góor tey la ko dégg kàddu ma kon taxoon naa ci góor ñëpp kon taxoon naa ci góor ñëpp mu ne ko wax nga dëgg ñu tëdd ba guddi. maanaam ñu nee na ñu tëdd ba guddi. fekk eh, Baye Abdou Khadir Jeylaani nee na ko fekk Baye Abdou Khadir Jeylaani nee na ko. su ma fanaanee. su ma fanaanee. su ma xëyee. su ma xëyee damay dem damay dem. fekk yàlla dogal na doom suñu diggante fekk yàlla dogal na doom suñu diggante. nañ ko tuddee Abdul Khadir. nañ ko tuddee Abdul Khadir. bu dee góor bu dee góor. bu dee jigéen bu dee jigéen. ñu tuddee ko Aïssatou. ñu tuddee ko Aïssatou. góor gi toog ba guddi. góor gi toog bu mu jël loxo càmmoyam bi mu jël loxo càmmoyam bi yëkkatee ko loxo ndeyjoor bi yëkkatee ko loxo ndeyjoor bi loxo ndeyjoor bi yëkkat ndëgët loxo ndeyjoor bi ca mbagg ma dafa la ko dalee ca mbagg ma ba ci baaraam ba ci baaraam yi lépp dafa dee lépp dafa dee woo koŋ woo koŋ ndaw si xool ko ba yàgg ndaw si xool ko ba mu yàgg na ko waaye yow lii kañ la la jot kañ la la jot xatam bi maay xatam bi ma xaajee màkk mu ne ko xatam bi ma xaajee màkk da wër kaaba gi da wër kaaba gi ma jilee genn jigéen ma jiital genn jigéen ma fakkastalu daanu ci koom daanu ci koom sama loxo ndeyjoor bi sama loxo ndeyjoor bi laal ci ndigli laal ci ndigli mu geesu ma mu geesu ma ndax ko caay jaaye ndax dama ko caay jaaye ñaanal ma mu ñaanal ma sama loxo bi wow sama loxo bi wow ndox na ko sama yaay la ndox na ko sama yaay la mu ne ko nga ne mu ne ko sama yaay def loolu mu ne ko nga mu ne ko sama yaay moo def loolu dégg naa mu nettali ko nee na dégg naa mu nettali mu ko dem waxoon ma sa yaay mu ne ko dem waxoon ma mooy goro mu ñëw toog mu ñëw toog mu nettali ko mu nettali ko yaay ji ne ko ci xaajeg sàngam la yaay ji ne ko ci xaajeg sàmbam sàngam la bisab sàngam ci yoor yoor yoor yoor nga daal sama kaw nga daal ci sama kaw damay damay caacaaye man ndax damay caacaaye ñaanal la ma ñaanal la ci saasi ba ngay doxat benn jéego ba ngay doxat benn jéego la loxo bi wow man mii la ne ndaw si ko man yaay ji ne ko man mii la mu ne ko kon nag demal mu ne ko kon nag demal boo demee nga ñaanal ma loxo bi mel ni meloon soxna si ñëw ci néegam soxna si ñëw ci néegam ñaanal ko ci guddi gi ñaanal ko ci guddi gi ba sëñ bi xëyee ba sëñ bi xëyee loxo mel ni loxo càmmooy loxo bi mel ni loxo càmmooy dara dara neetul ci mu fanaan ba seen mu xëy ñibbi nee na mu fanaan ba seen mu xëy ñibbi ndeke soxna si ci wan na lor ndeke soxna si wan na lor ba mu juddoo ba mu juddoo muy Abdou Khadir Jeylaani muy Abdou Khadir Jeylaani moo tax Abdou Khadir Jeyraani. baayam dafa baax. baayam dafa baax. yaayam baax. yaayam baax ñaari maamam yi baax. ñaari maamam yi baax. mënta bon. nee na kooku mënta bon. lu ko jigéen def. lu ko jigéen na këram. toog na këram. xame benn soxna. xame benn soxna. am ay gan. am ay gan. gan gan ñi xendal ci ko xendal ci ko mu dem jëndi yàpp mu dem jëndi yàpp jox soxna si jox soxna si dama toggalal gan ñi añ soxna si jël yàpp soxna si jël yàpp teg ko fële dëpp ko teg ko fële dëpp ko dem ci téere góor gi dem ci téere góor gi téere Abdou Khadir ji téere Abdou Khadir Jeeraani ci la jël ci la jël def ko ci kaleera gi def ko ci kaleera gi sotti ndox sotti ci ndox def ci safara si ba trois heures ci bëccëg nee na ba trois heures ci bëccëg mu ne ah si toog ba mu yàgg na xaaral ma seeti ne ah, si toog ba mu yàgg mu ne ci waañ bi dugg ci waañ bi ubbi ubbi kaw diir gi ubbi kaw diir gi kër yaa ngi wañax gis kër yi ñu ngi wañax ronga ñu toog ronga ñu toog mu ubbi bool ba mu ubbi bool ba gis yàpp yi doog a ñëw mu génn rek mu ne mu génn rek jaar poot jaar poot dem dem ne dootu wàññeeku mukk nee na dootu wàññeeku mukk loolu ko taxoon a moo taxoon a gàddaay gi gi ñuy dégg loolu la ko waral gan ñi toog. nee na gan ñi toog ba tàkkusaan. ba tàkkusaan gisuñ ko. gisuñ ko ñu ne ah li mbir la de. ñu ne ah, lii de mbir la. daal di ñibbi daal di ñibbi. muy dox. nee muy dox. ba bis ba ba bis ba delsi. dox na diggante boo xam ne. dox na diggante boo xam ne. am na ñaari fan. am na ñaari fan. gisu dëkk. gisu dëkk. benn benn diggante rek. nee na benn diggante kese. mu dem ba mu yàgg. mu dem ba mu yàgg. mu fekk ñaari góor. mu fekk ñaari góor. ñu jolleen. mu jël ñaari góor. ne lu ngeen ne leen lu a def fii. ñu ne fii dañu fay jaamu yàlla. ne fii dañu fay jaamu yàlla. ah waaw lu ngeen a lekk ak lu ngeen a naan. lu ngeen a mu ne leen ñu ne ko. ñu ne ko. dañu am suñu sëriñ boo xam ne. dañu xam ne. mu ngi ca Maghrib. mu ngi ca Maghrib. Qadir. tudd Qadir. suñu bëggee lekk. suñu bëggee lekk. te ñu ñaan yàlla ci darajaam. ñaan yàlla ci darajaam. lekk taaje. lekk taaje. suñu bëggee ñaan. suñu bëggee ñaan. naan. naan. ñaan yàlla ci darajaam. ñaan yàlla ci darajaam. ndox ñëw ndox ñëw. ci loolu leen la ñuy wéy nee na ci loolu ci la ñuy wéy sangu sax suñ ko bëggee sangu sax suñ ko bëggee ñaan yàlla ci dara jàpp ñaan yàlla ci dara jàpp ndox mi sangoo dig ndox mi sangoo dig te moom mooy Abdou Khadir nee na te moom miñ taxawal te wax mooy Abdou Khadir te xamu doon ne nee na te xamu doon ne maxaama boobu maxaama boobu xam na ko ci yàlla xam na ko ci yàlla wàññeeku nee na mu wàññeeku ne dootuma dem ne dootuma dem damay wàññeeku damay wàññeeku jigéen dootuma taxamante di def dootuma def def du tax may gàddaay du tax may gàddaay dootum dootu am nee na jigéen dootuma ko def mu ñëw ci kër gi mu ñëw ci kër gi ñëw toog ba léegi may wax ak yow ba léegi mi wax ak fu ñee takkee sëy nee na fu ñee takkee sëy tuddee Abdou Khadir Jaylaani buñ fa tuddee Abdou Khadir Jaylaani sëy ba yàqu sëy ba yàqu du baax mukk nee na du baax mukk kooku nit yàlla pire la nee na kooku nit yàlla pire la jaar fi fi mu jaar fi mu jaar soxna xoolal fi mu jaar fi mu jaar ak jigéen gis nga ni ko yàlla natoo nee na gis nga ni ko yàlla natoo xam na benn sëñ daara boo xam ne am na benn sëñ daara boo xam ne xaafis la xaafis la xaalim la xaalim la wax nañ ne nit yàlla pire la wax nañ ne nit yàlla pire la ci Saalum fii ci Saalum fii fi la nekkoon nee na fi la nekkoon jarul muy wax turam. benn jabar la amoon. nee na benn jabar la amoon. waaye jabar bi. waaye jabar bi. bu koy horeer. bu koy horeer. li ñuy wax bakku bakku. li ñuy wax bakku. bakku gu ñuy xamuñ ko. nee na bakku gu ñuy xamuñ ko. mag ñi dañ ko daan xeet. mag ñi dañ ko daan yet. moo lay yëngatee kaleera gi. moom la ñuy yëngatee kaleera gi. buy maafe. buy maafe buy laaf. buy laaf buy lu mën a doon. buy lu mën a doon bakku bi. bant bi moom lañ koy yëngatee. moom lañ koy yëngatee. soo paree eh, roof ci roof ci waañu. nee na soo paree roof ci waañu. soxna si bu koy xooti reer. nee na soxna si bu koy xooti reer. bakku biraay ñëw ni Mahadou mi la toogee ak nelam bi nee na ni Mahadou toogee nii ak nelam bi mu fëggoo ci ne ko rang rang rang ko ci ner rang rang ne ko joxo ñu réer joxo ñu réer <laughs> mu raay bopp bi xëy na mu raay bopp bi du wax dara du wax dara seet ni ko yàlla na ko nee na seetal ni ko yàlla na too ci tampi sàmbara bi tafsir sàmbara bi ne li ko yàlla natt nee na li ko yàlla natt nee na ku mu ko nattoo nee na ku mu ko nattoo natt na ko ba natt na ko ba seeta dëkk yi xam mën ta dëkk fenn mën ta dëkk fenn mu ngi sanc dëkk bi mu ngi sanc dëkk bi mille huit cent mille huit cent quatre-vingt-douze quatre-vingt-douze son baay judd quatre-vingt-douze son baay judd mille huit cent quatre-vingt-dix nee na papaam judd na mille huit cent quatre-vingt-dix sàmbara ko sanc dëkk bi sàmbara ko sanc dëkk bi mille huit cent mille huit cent quatre-vingt-douze quatre-vingt-douze ren la ci ren la ci téeméer ak ñaar téeméer ak ñaar fukki at sama baay nee na ma. nee na baayam nee na ko. ci mbaar yi la fer. ci mbaar yi fi la fer. ñii gas seen yoonu kër ma jël. ñii gas seen bële ci yoonu kër ma jël. seen bi bënnagut. nee na seen bi bënnagut. ñi mbaar mbaar yi. ñi mbaar mbaar yi. ci la ko feral. ci la ko feral. ñu dem ba 1901. nee na ñu dem ba 1901. de juma. de juma ñu jël sàmbara si. ñu jël sàmbara si. tëj ko ñooro. tëj ko ñooro. ca Kosovo. ca Kosovo. am na fa weer. nee na am na weer ca Kosovo. nattu raw na loolu. nee na nattu raw nee na nattu rawul loolu de. ah. mu del see ci ci ci dëkk bi. nee na mu del si ci dëkk bi. xam fi ayaat. xam fi ayaat. ku dem ak jàmm dem ak jaagaan. ku dem jaagaan. xam fa ayaat. xam fa ayaat. ñëw Paymar. ñëw Paymar. sañ ko. sañ ko. maam xam yéen mi jur sama baay nee na maam xam yéen mi jur baayam Faymaar la gaañoo Faymaar la gaañoo mu am fa ayaat mu am fa ayaat dem Daraame Iskaal dem Daraame Iskaal foofu sanc foofu am fa ayaat am fa ayaat ñib si at fii ñib si at fii bi muy ñib si fii ba muy ñib si fii bay sama bay Ibra Xadi nee na baayam Ibra Xadi moo njëkk ñëw moo njëkk ñëw ba mu ñëwee ba mu ñëwee Samba Rax Njoobeen la daal kër Samba Rax Njoobeen fa la daal ñëw seen dëkk bi ñu ne ko seen dëkk bi mii dina lañ mii dina lañ ko tuddee woon mii dina lañ ko tuddee woon bay Ibra am na fa ñaari at nee na bay Ibra am na fa ñaari at maam Samba fekk ko fa maam Samba fekk ko fa nawet faak moom nawet faak moom ba nawet bu wàcc na ñibbi mu ne ko nañ ñibbi ñu ñib si fii ñu ñib si ko sancaat ko moo doom fu doom ne nee na fépp fu doomam nekk mu woo ko mu ne mu ñib mu ñib si sancaat dëkk bi ba ni mu yem ba ni mu yem nii kon kooku yàlla nattu ko nee na kon kooku yàlla nattu na ko de ah yàlla nattu na ko de nattu na ko de mboolem soxnaam yi nee na mboolem soxnaam yi ñett la ci suul ñett rek la ci suul kumba der kumba der mi xawam mi xawam mu jël bay siise mu jël bay siise faatu kumba faatu kumba alaaji usmaan mi jël alaaji usmaan maram maram kumba maram kumba atta kumba atta kumba laamin kumba laamin kumba mamat kumba kooku la rob fii nee na nee na kooku la rob kooku moom moo xamul sax fuñ ko rob nee na kooku moo xamul sax moom fuñ ko rob kan xamee na jikko mi jël sama baay nee na xamee na jikko mi jël baayam sambar xe rom moo ko rob sambar xe ko rob paymar paymar foofu la xabrum bale nee na paymar la xabrum bale xadi njaay nee na xadi njaay mi jël bay ibra xadi mi jël bay ibra xadi mu ngi fii mu ngi fii fii lañ ko rob nee na moom fii lañ ko rob Samba Raxi. nee na Samba Raxi. yaayam. yaayam Raxi Sidi. Raxi Sidi mu ngi ci diggoo bi. nee na mu ngi ci diggoo bi. waaw Raxi Sidi mu ngi ci Samba Raxi. nee na Raxi Sidi mi jur Samba Raxi. guddoon fan la mooy. nee na fan la moom it. nee na mu ngi ci diggoo bi. Mamad Mat Kumba. nee na Baye Mamad mi topp ci ci Baye Cissé. xool ni ko yàlla natoo. xool ni ko yàlla natoo. jàng mën na jàng mën na jàng xam xam-xam xam xam-xam saayir ak baat yi saayir ak baat yi mën na nekk ci ay bokkam mën na nekk mën na nekk ci ay bokkam dem Casamance dem Casamance dem Guinée Bissau dem Guinée Bissau fu mu gaañoo fu mu gaañoo benn doom lañ xam ci moom benn doom rek lañ xam ci moom muy Mariama mi muy Mariama mi mi nekk fële waaw Kébémer Mariama mi nekk Kébémer xool xoolal boobu natt nee na benn doom boobu rek lañ xam ci moom xoolal boobu natt nee na xoolal xoolal natt boobu li ko yàlla natt nee na li ko yàlla natt yàlla bu mu ko natt ay sëtam yàlla bu mu ko natt ay sëtam ah mi ngi yaa rabbal alamin waaye li alaaji liwaat nee na alaaji dem na fa dem na fa man alaaji Moodu nee na moom dem na fa ak bay alaaji Moodu sëñ Moodu Yaasin sëñ Moodu Yaasin keroog nee ñu nee na keroog nee na leen seen maam Sambara seen maam Sambara gémmiñ ña ko jàpp gémmiñ ña ko jàpp ñu ne ko ah ne nee na mu ne ñu ko ah mu ne li li ko gémmiñ def mu ne li ko gémmiñ def kéemaan la kéemaan la mu ne te gémmiñ googu mu ne te gémmiñ googu arrêté wu de arrêté wu mu ngi royaat mu ngi royaat képp ku ci bokk képp ku ci bokk ak loo sori sori ak loo sori sori loo ci bokkee ak loo la laal ñu ne ko ah mu ne ku ci bokk. mu ne ko ñu ne ko ah mu ne ku ci bokk loo sori sori. ak loo jege jege ak loo jege jege. gémmiñ gi daan la laal gémmiñ gi daan la laal. te gémmiñ gi. nee na te gémmiñ ci sàmbara xeloon. ci sàmbara xeloon. Ah, ñu ne ko ah. alul moom lu ko waral. lu ko waral. mu ne ndax. mu ne ndax. bëri na wàll yu ñooy wax bëri na wàll yu ñooy wax. àggale ko fii. àggale ko fii. ci luy ñuul ci we. ci luy ñuul àgguñ ko ci luy ñuul ci we. mu tudd ñu yenn wàll yi mu tudd ñëwee kenn. nee na mu tudd leen ci benn wàll yi. wàll yi pire la. koo xamante ni wàll yi pire la. àggu ci luy ñuul ci we. àggu sàmbara ci luy ñuul ci we. tolum ko ci waaye ni xamee ñooña nee na waaye ni xamee ñooña xamee wuñ ko ko xamee wuñ ko ko ngir gémmiñ ngir gémmiñ kon kii ki ya- kii yàlla natu nee na kii da koo natu yàlla natu ko de da koo natu fukki doom yeeg ñaar fukki doom yeeg ñaar ci góor ci góor fukki doom yeeg ñaar fukki doom yeeg ci jigéen ci jigéen seen ndey dajewuñ seen ndey dajewuñ am na soxna soo xam ne nee soxna soo xam ne yàlla baal na ko yàlla baal seen nopp seen bam bam koy bam koy lañ lañ ci ci ci ci ci ba ci kër ga ba léegi taxawul ci kër gi. kooku benn doom la fi am. nee na kooku benn doom la fi am. bu góor bu góor. Sambara bi ngeen jamono. nee na Sambara bi mooy génn jamono. kenn soxna kaan kenn la am. kenn benn soxna la am. moo ko tënji. moo ko tënji. seeta loolu kenn ko tënji. nee na kenn rek moo ko tënji. muy maami Basiru mi le. muy maami Basiru mi. maam sët. maam sët moom rek moo ko tënji. nee na maami Baye rek moo ko tënji. ñii tàggoo naa ñoom. nee na ñiy tàggoon ak ñoom ñi faatu ñi faatu gudd fan la ko tax gudd fan moo ba mu faatoo nee na ba mu faatoo Mamour Diop Mamour Diop ci ndaraam iskal ci ndaraam iskal ca sanc ba ca sanc ba bàyyi ndax ti Diop bàyyi ndax ti Diop moo doon maam sëtu moo doon maam sëtu boobu xala ba mu gaañoo nee na ba mu gaañoo maam sëtu la sugu ñu bi caare maam sëtu ci la dooga ñu bi caare moo jur bay Cheikh moo jur bay Cheikh mu jur bàyyi bas mi kon lii doy nañu doo doyagum nañu ci sàmbara fi nee na kon lii doyagum nañu ñun ci sàmbara fi ngeen xam ne ku yàlla nattu la nee na ñu xam ne ku yàlla nattu la nitu yàlla piir la nitu yàlla piir la waaye yàlla natt na ko waaye yàlla natt na ko ku la ëpp ma xama ci yàlla ku la ëpp ma xama ci yàlla xëpp la nattu xëpp la ay natt ku la ëpp ma xama ci yàlla ku la ëpp ma xama ci yàlla xëpp la ay natt ku la gën ku la gën ci yàlla ci yàlla xëpp la nattu xëpp la nattu kon bu ñëw bu su fekkee dañ dafa mel ni dañ ne xamul nattu bu fekkee dañ ne xamul nattu kon baax gi ñuy wax day dàqu kon baax gi ñuy wax day dàqu seetloo ko xanaa nee na seet seet leen bu baax buñ bu ñu amul nattu. bu ñu amul kon maa ngi ñëw day daaw. maa ngi ñëw wax ci yàlla day daaw. dëgg gudd na fan. nee na dëgg la gudd na fan. juróom-ñeent fukki at. juróom-ñeent fukki at ak juróom. ak juróom. bi mu feebaree. bi mu feebaree. maam Daouda kan kër ma jël. maam Daouda kan ci kër ma jël. mbokkam la najaayam la. nijaayam la. Daouda. Daouda mooy nijaay Sambara. mooy nijaay Sambara. Matar Ndumbe la. Matar Ndumbe la ak Fatma Ndumbe. ak Fatma Ndumbe Matar Ndumbe. Matar Ndumbe moo ji Salma Kan. moo ji Salma Kan mu ji Daouda. Fatma Ndumbe Fatma Ndumbe mu ji Sidi Fatma. moo ji Sidi Fatma mu ji Raxa Sidi. Nadiane ngeen xel mu ji Samba Raf. nee na Nadiane wax kan la. moo ko wax ne ko. nee na moo ko wax ne ko. Tafsir. Tafsir ñaata at nga am. ñaata at nga am mu bank loxo bi. mu bank loxo bi na ko juróom yii na ko juróom yii. moo manqué téeméer moo moo manqué téeméer. moo ko moo la manqué téeméer. moo ko moo ko manqué téeméer. looloo xamal nit ñi ne. moo looloo xamal nit ñi ne. juróom-ñeent fukki at ak juróom la dund. juróom-ñeent fukki at ak juróom la dund. sam maam Daawud kan. mu ne ko maam Daawud kan. mooy nijaayam. mooy nijaayam parce que bi maam Samba faatoo. parce que bi maam Samba faatoo. bi mooy faatuwaat. bi mooy faatuwaat. dafa xoote. dafa woote ci waxtu timis. ci waxtu timis. ci saa su ne ni ki tey. ci sabaan xames ni ki bisab yi toog. ñëpp toog. ca ña fa newoon booba. nee na ci ña fa newoon booba. mu ne leen. mu ne leen mbir mi àgg na. mbir mi àgg na. danaa dem léegi. danaa dem léegi. suñ ji léegi. suñ ji léegi. su ma fi boo. su ma fi boo. buñ ma yàkkamte. buñ ma yàkkamte. tëral su ma digg ruum bi. nañ ma tëral su ku digg ruum bi. ku ñëw gis mu. ku ñëw gis mu. ku ma gis mucc. ku ma gis mucc. du ma su nëb. du ma nëb. du ma soppeeku. du ma soppeeku. du ma def dara. du ma def dara. su ma fi amoon ñetti fan it. su ma fi amoon ñetti fan tamit. nañ ma buñ ma sangee. buñ ma sangee. suul ma ci jàkka ji. suul ma ci jàkka ji. ana maale. ana maale. mu ko maa ngi. ko maa ngi. ko nag ma taxawee. mu ko nag ma taxawee. ku fi dikk. ku fi dikk. lu mën a xam xam nga ko. lu mën a xam xam nga ko. te yaa ci gën a yeey. te yaa ci gën a yeey. suñ ma robee. ma robee. ana Ibrahima mu ne. ana Ibrahima mu ne ko naa. ana Cissé. mu ne ko ana Cissé. na ngeen wër. na ngeen wër. xabru bi xabru bi. yéen samay doom. yéen samay doom. seedoo kaamil bi bi jàng ko jàng ko buñ ko jàngee buñ ko jàngee ana Ibrahima ana Ibrahima mu ko maa ngi mu ne ko maa ngi mu ne ko nga jàng xatmu bi nga jàng xatmu bi ni ñuy jóg tasaaroo ni ñuy jóg tasaaroo wàcce ma yàlla wàcce ma ak yàlla noonu lañ ko def bañ toogee bañ toogee ba bañ toogee ba tusubaar nee na bañ toogee ba tusubaar ñu yóbbu ko ci wanag wi ñu yóbbu ko ci wanag wi nen nañ ko sang nen nañ ko sang xamuñ ku ko sang xamuñ kenn ku ko sang kenn ñemut ko kenn ñemut koy sang ku joxe ku ñëwoon nga joxe ngaan ku ñëwoon nga joxe ngaan ku ñëwoon nga joxe ngaan ku ñëwoon nga joxe ngaan njol maa nga tëdd rek nee na njol maa nga tëdd rek taar ba ak taar ba ak xonqaay ba ak xonqaay ba tàlli rek tàlli rek ku ñu wax rek boo dikkee rek ku ñu wax boo dikkee ne hee wañeeku wàññeeku maam daaw da ko sang nee na maam daaw rek kan ci kër ma jiwel moo ko sang dañ ko mu ñëw ñu ne ko dañ ko mu ñëw ñu ne ko maqaam bu mën a am. maqaam bu mën a am. ak lu mën a dox. ak lu mën a dox. yaay kilifaam. yaay kilifaam ndax yaay na jaayam. ndax yaay ni jaayam. yaa koy sang. yaa koy sang. moo tax moo ko sang. nee na moo tax moo ko sang. moo tax keroog ba ma waxtaanee moom. nee na moo tax keroog ba ma waxtaanee ak moom. mu ne Ousmane. mu ne ko Ousmane. waaw mu ne ma li ma am yombut. mu ne ko li ma am yombut. mu ne ko loo am. mu ne ko loo am. mu ne sama am sàmbar maa ko sang. mu ne ko sama am sàmbar maa ko sang. sa baay maa ko sang. sa baay maa ko sang. ma ree. mu ne mu ree. ci sama xel ma ne. ci xelam mu ne. léegi ñu sang la. léegi ñu sang la de. teguñ ci ñaari weer ñu sang ko. nee na teguñ ci ñaari weer ñu sang ko. yàlla waaw lii la ma wax ci chronologie bi waaye teguñ ci ñaari yoon mooy mu ñu sang ko. nee na teguñ ci ñaari yoon mooy ñu sang ko. bañ ko robee. nee na bañ ko robee. jànkaay bi jànkaay bi. ba Ibra jàng xalmu bi ba Ibra jàng xalmu. wax nañ ne keroog ku fa ne. wax nañ ne keroog képp ku fa ne sorong ngañ toq na. ñu tasaaroo. nee na ñu ñu gan ñu tasaaroo. bañ ko jëlee ca wana woo. bañ ko jëlee ca wana woo. ba ñëwee ba cët ba. ba ñëwee ba cët bi. àttanatuñ ko àttanatuñ ko. dafa dafa dafa siisu. dafa siisu. lu mat fukki nit. nee na lu mat fukki nit ñu ngi ko téye waaye mënuñoo dem waaye mënuñoo dem. xaatunuñ ko. mooy mu ne xaatunuñ ko. ñu tëral jàng ñu tëral taati gi. Bay Cissé moo jóg. Bay Cissé moo jóg. ne jàng leen alxuraan. ne jàng leen alxuraan. doom yi ñi ko wër ay kàng lañ. doom yi ko wër ñëpp ay kàng kenn ku ne dal ci borom kenn ku si nekk dal ci borom moo yef ni xob moo yef tol ñoo bëgg jëbunti bëgg jëbunti dégg na bay baaw ne dégg na bay baaw ne bay baaw boobu bay baaw ana male ana male mu ne ko maa mu ne ko maa ko kay taxawee sa baay mu ne ko kay taxawee sa baay kenn du ko taxawee kenn du ko taxawee moo ñëw taxawee ko moo ñëw taxawee xamay gi xam ci nana may gi xam ci la ko may gi xam ci may gi maam ci yàlla may gi rëy rëy nee na lu may gi re rëy natt yee kopp natt yee kopp cey waaw juróom-ñeent fukki at nee na juróom-ñeent fukki at ak juróom ak juróom la dund ak moom la dund moom la dund sañ ci dëkk bi sañ ci dëkk bi ni ma la ko waxee kenn nit ñi ko waxee mille huit cent mille huit cent quatre-vingt-douze quatre moom mu ngi judd mu ngi judd mille mille huit cent mille huit cent quarante 1844. 1844. décembre la judd décembre la judd. moog Limaamu Laay Yoof. nee na moog Limaamu Laay Yoof. ñoo bokk xam nuñ judd. ñoo bokk xam nuñ judd. 1844. 1844. soo calculé. soo calculé. ba ci 1939. ba ci 1939. ci la faatu. ci la faatu muy juróom-ñeent fukki at. muy juróom-ñeent fukki at. ak juróom. ak juróom. 19 19 1939. 1939. 1939. ci la faatu. ci la faatu. 1940. 1940. man mii ma judd. nee na moom mii mu judd. gisuma ko. nee na moom gisut. am na lu mu xam ci moom. waaye am na lu mu xam wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen nuyu baax di leen ziar eh, di leen jaajëfal yi ñëpp di ñaan képp koo xamante ni déglu na audio bi mu ñaanal sëriñ bi yàlla yàggal ko fi may ko fanu gudd gudd gudd wànd ak wér gu yaram ak mbooleem njabootu sàmbarxi bi xurmat sayyidil wujud sallallahu alayhi wa gaaw leen ngeen ne ci seen seen youtube bi di TV KMBN ñu tuddee ko mu Khalifa du basiiru ndaw ngir ngeen mën di jot mbooleem xew-xew yi nga xam ne day xew fii ci Daaru Salaam El Hadji Omar Ndao ak yi xew ci biir réew mi ak ci bitim réew